am nañ ci fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla kii euh, fekk dañoo euh, fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak benn cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee ni ñett ci Diamniadio Grand Dakar Kër Massar ak Parcelles Assainies ñaar ci Guédiawaye Médina Ngor ak Sacré-Cœur benn ci Amitié 2 Cambérène Cité Takku Hann Bel-Air Kounoune pikin Pikine Scat Urbam ak zone B ci région yi am nañ ci ñaarika benn ci Kolda ak benn ci Mbuur juróom fukk ak malade woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni tey dinañu génn si yàlla ànde fukk juróomi malade ñoo nekk benn malade moo ñàkk bakkanam ba su démb alarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñu jot ñu ngi toll ci fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñett génn àdduna ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñett fukk ak juróom ñu nekk ci traitement ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar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 léegi ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel aussi vaccination bi ñu pour mbas mi ñooñu tamit li ñu leen di digal mooy nañu dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkaw ba pare nañu denc seeni carte de vaccination bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollante ñaareelu dose bi te nañu wéy di samonte ak digle yi ñu joxe bës bu nekk ministère de la santé et de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm wasalaam